C'est surtout pour féliciter le, euh, monsieur le ministre. Parce que l'on fait def, on a fait des choses qui de bétail, qui le département de Kungel, à l'heure actuelle 2110 tonnes d'aliments de bétail. Pas à l'Oumakaf, on 210 tonnes. Force Covid-19, on a 500 tonnes, on a à 2200 OSB a 250 tonnes à 5200, Arc de 250 tonnes à 2200. Ce qui est de 1210 tonnes, et encore 50 tonnes qui ont marché dans le marché. Monsieur le ministre, ce qui est le centre de l'Etchigurum. Nous avons dit l'entrée de Djurgi. Je vous rassure, c'est en collaboration parfaite

جيرم سنت برينزدان مكسل اك ديليغاسيون منستر منستر اللي باش مانجلن نوي مانجلن سنت مانجلن جيرم مانغي واخ من الامام حيدرا اك حمدي سيبه مانجلن يغل سين واخ اك سين ناري اك ناري سنن كوبو باخ كان لاجول درا في في, في في الحمد لله مير مير آه، مصر امول بن فرولم اك جندرموري اك بريف نيوم نيب الحمد لله تجام اك سلام الحمد لله لنك فيه الحمد لله جام اك سلام جام اك سلام مري اك سنغال بن الله ديس نيو لولو ديس نيو لولو فراج بي الحمد لله تبارك الله امول بن بروبلم امنا كورا امنا ندخ امنا لب امنا سكريتا الحمد لله دا ماي ناني دي نيو جوغي في راسيرو lu tax rassuré wu euh, daaw ci même période bi mën naa ne ñu ngi toll woon ci lu tolloog cinquante mille têtes tey ci tey ci li ñu jot ci suñu service ñu ngi toll ci cinquante huit têtes yu dugg fii gëm nañ ne nag tendance bii mi ñu nekk su continuer ba mu jeex gëm nañ ne réew mi mën naa war a am xar misira am xar région Sénégal yu ci bari am xar mais loolu encore une fois de plus damay insister parce que nak nit ñi dañoo gaaw ci ne ministre bi kat moo waxoon nangam moo waxoon nangam ñun suñu cër ci lii mooy lan mooy yombalal ñi nga xam ne ñoo bëgg jëndi ñu dem jëndi ñi nga xam ne ñoo bëgg transporter ci biir réew mi ñu mën a transporter parce que président de la république nee na muy police muy gendarmerie muy douane bu kenn gàllankoor koo xam ne day jëli xar muy fii ci biir réew mi muy ci bitim réew ci yoon yi également munul ñàkk li ñu naan contrôle mais na yem ci strict minimum loolu lu tax loolu bërki démb u démb foog naa dégg ngeen ñu ñu jàpp frontière Kidira ay xar lañu ñuy yeb waaye fekk camionneur bi mu ngi dugal chèvre indien ci biir camion bi moo tax contrôle mënul ñàkk dañoo frontalier ak réew yeneen yoo xam ne jafe-jafe yu bari sécurité am na ci kon ala saga contrôle mënul ñàkk ci loolu nag président nee na nañ nañ ko def naam waaye na na nekk loo xam ne lu mun a ñàkk la loolu jeex également mu ne nañu aménager point de vente yi mooy képp koo xam ne da ngay jëndi soo jëndee nga mën soo ñëwee nga am place boo nekk mu am sécurité mu am ndox mu am courant mais aussi mu am aliment subventionné at yi wees mën naa ne daaw mille tonnes la ñu joxe daawaati jéeg c'était sept cent tonnes

d'inciter les, les, les, les, opérateurs à plus de compréhension, mais aussi nous accompagner les gens qui ont Parce que qui a des facilité, il faut que nous ki nga xamné ne jënd aussi dina yomb ci mom que Covid 19 bi dafa indi contexte bu bess contexte bu bess nak fu mu amee fu ne rek euh, ay mesures yu bees it am ci mesures yi bokk na ci tëj frontière yi moy suñ digganteeg Mali suñ digganteeg Mauritanie suñ digantek fenen mais sante yalla ba ñu permettre quand même circulation marchandise té man naa ni jur gi tey ci marchandise yi la bok en plus de cela aussi président de la dafa def ben lettre circulaire mu wax police ministère de l'Intérieur, mu wax forces armées mu wax euh, ñi nga xamni ñëpp intervenir ci lool nonu mu ne leen képp koo xam ne ay xar lay jëndi ci bitim réew wala di di ko dugal ci biir réew mi nañ ko yombalal dem beeg dikk bi et loolu aussi actuellement mën naa ne ci zone yi ñu dem yépp wala yi ñu dégg yépp wax dëgg fi yàlla mu ngi doxee ni mu war a doxe au niveau national tey ñu ngi estimer suñuy prévision luy tolloog euh, huit mille têtes et marché bi nga xam ne moom mooy marché terminal bi gën a mag muy Dakar mu ngi toll ci euh, deux cent soixante mille têtes euh, fi mu toll mënuñu ne jot nañu li ñu bëgg lépp en terme de d' approvisionnement waye gëm nañ ni su tendance yi nga xam mom lañu recevoir actuellement continuer gëm nañ ne dinañ ko mëna jot et ñu ngi ñaan yalla man ko jot inshallah taala